sëriñ Tuubaa nee na fa iza kutibat hazihil ayata bu dee aaye bii bind nga ko wa xuliqat alal ñu takkal ko soxna sa ëmb fi awali muddati ca weer ya mu commencé yëg ëmb ba muddatil hamli muddata arbahiina lu tollook ñeen fukk yow man ci ay fan mu takk ko ñeen fukki fan tekki ko denc ko summa tahallaqa ala zabiyi isa wulida yàlla dina ko aar ba mu wusin ak jàmm bu demee ba wusin mu takkal ko doom ja fa inna zalika naka doom jooje yekkoonu ay san dina nekk ci wattu goog sunu borom moo koy wattu wattu googee nag sunu borom dina ko tàbbal lil aamili ca soxna sa ko sunu borom dina ko defal ndimmal ba keroog muy wusin doom joojee yàlla dina oyofal lépp waaye san lil waladi sunu borom dina ca boole wattu doom ja waxaw nan sunu borom dina ca boole defal ndimal doom ja allah najaatihi ci musal ko ci lépp lu lor doom aadama bi isnillahi ci na mel ak sunu borom yàlla dina dogal loolu ginaaw ba ñu jëfandikoo ñaan googu wa fiihi aydan mimma yaxfasul aamila ba tey bokk na ca la nga xam ne des na ko jariñoo ngir kaar jigéenu werut ngir kaaraangeem ñu aar ko mina isxaatil janiini ci luy tax du wàcc ëmb ba maanaam ëmb du yàqu luy tax du am gune te waxtu wa jotul xawluhu taala mu nekk ca waxi sunu borom ji di baat yi ñuy waaji wax wa bisoo fi kahfihim salaasa mi'atin siniina wasdaadoo tisahan qulillaahu ahlamu bima labisoo lahu xaybu samaawaati walardi foofu la yam mu ne kàddu yooyu nga dégg tuktabu bés ko bindee haasihi layatu muy aaya boobu nga dégg te mu doon aayab watu wa tuallaqu alayha ñu bindal ko soxna soose nga xam ni day faral di ëmb muy yàqu su boobaa ci na mel ak sunu boroom tahfazu minal lisqaati sunu borom dina ko musal ci muy ëmb ëmb ba di yàqu bismillahi ci na mel yàlla yàlla dina ko amele noona alxuraan lépp a ngi ci biir wa fii bokk na cee nga xam ne dina aar jigéen ju ëmb ay dan ba tey asmahoo naka turu yàlla wa nga xam ne taxalaa yàlla may aji kowe am na turam woo xam ne sa diidu sa diidu la siin sutooy tooy deel yaa deel noonu lañu koy binde isaa kutiba fii mura baay bu dee bind nga ko ci xaatimab ñeenti kër arfiyin àla tariixi taksiiri nga bind ko araf ya duñu taqaloo danga leen di taqale nga bind ko ci fi sax fin ci nataal bu mel ni bii ma lay waaje wax nga di ko dégg sa nopp yéenti kër lay doon ca kaw yéenti kër ronu ko yéenti kër ronuwaat ko yéenti kër ronuwaat ko su ko defee nga def ab galan ci digg bi rëddu galan defaat rëddu galan ci digg bi defaat rëddu galan su ko defee xaatim bi boo tuma boo commencé ci ko woon ñi jëm suuf dangay ngay daan benn ñaar ñett ñeenti kër nga ñëw ci digg ba woon ñi jëm suuf da nga benn ñaar ñett ñeenti kër nga toppaat sa loxo càmmuñ woññaat jëm suuf da ngay amaat ñeenti kër nga toppaat sa loxo càmmuñ woññaat jëm suuf da ngay am ñeenti kër su ko defee muy fukki kër ak juróom-benn. topp ñu ci numéro bii di ñëw ñu eggaleel la xaatim boobu ni muy mel. yaa i jàng maj ma wu nóoree ni téereb sëriñ Tuubaa bi ñu dajale yaari leer